je pense que vous pouvez m'excuser je vais m'exprimer en wolof euh, ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di rafetlu vraiment initiative bu am solo bi nga xam ni dikk na ci waxtoom ñu war a jubbanti loo xam ni dese woon naa jub na mu war a jube man nag ma am lenn rek lu ma ci bëgg a wax duma ma guddal mooy initiative bi am na solo te yaakaar am na ci yaakaar yooju nag dara waru ko gàllankoor dara waru ko yàq ma dégg fii nag sànq loo xam ni mën na ko yàq mën na ko gàllankoor te it su fekkente ni loolu mooy nar a am it dana indi coow lu rëy ci réew mi dana yàq lii ñu doon def te dana yàqal président de la république ak bi mooy traité ak convention yi ñu fi tudd les traités internationaux et les conventions bari na ci yoo xam ni askan bi nga xam ni ñoom ñoo tax ñuy def loi yi xamuñu ko xamuñu contenu bi la ca nekk lu mu doon et on nous di boo demee ci préambule constitution bi baat bi ci njëkk mooy askan wi ñoom moom législateur bi buy def loi ci turu askan bi la koy def sunu magistrat yu am maanaa yii tamit bu ñuy jël ay dogal ci turu askan bi la ñuy jëlee dogal boobu kon askan boobu moom ñu jël ay engagement yoo xam ne ce des engagements dits internationaux xamuñu lan mooy contenu ba war ñu bëgg ñu wax ni ñu il faut ñu harmoniser lan la ñuy harmoniser loolu moom man je m'engage fii bu fekkente ni loolu mooy li ñu fi wax man ànduma ci te mën naa wax fii solennellement ni amul genn këru diine ci Sénégal gu ci ànd il faudrait que ñu xam li ñuy harmoniser lu mu doon d'abord ba pare parce que texte yooyu en fait lu ci nekk ay délégation jóge fii dem on leur dit que signel fii signel fii ñu jël fii ni ñun on on s'est engagé au nom du peuple sénégalais ça n'engage pas le peuple sénégalais wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu jërëjëf sëñ bi Mboup Ibrahima Tine ah tobu la woon ah. merci monsieur le président euh, damay lancer damay attirer benn attention rek parce que je pense que je l'avais soulevé ci suñu commission la modernisation c'est concernant l'âge de la retraite des magistrats parce que l'ancien régime sortant je pense que pour euh, faire plaisir à certains yóbboon na augmenté woon na ko de trois ans Mais à mon avis, aujourd'hui, euh, ça risque de faire un, un débat ou bien on Sénégal. J'ai rien contre les matchs, ça, ce sont mes amis, ce sont si jamais que, par exemple, on adopte, on l'adopte à 68 ans, demain les enseignants, ils vont réclamer. Les greffiers vont réclamer, ainsi, ainsi de suite. Est-ce que, est -ce que ça ne va pas amener un niveau, de, au niveau des finances du Sénégal C'est vraiment, euh, je voulais attirer l'attention euh, des responsables par rapport à ça. Et vraiment, je m'excuse de ça. Hein. jërëjëf euh, monsieur Tine Souleymane Gueye merci beaucoup Euh, je salue toute l'assistance donc, euh, et félicite euh, de la tenue de cette semaine de travail qui a été, à mon avis, excellente. Euh, je voulais juste revenir sur un point du rapport. À un moment donné, le rapporteur euh, Bamba Kassé a parlé d'un point de consensus où il disait qu'il fallait revoir les codes. Et il a cité des codes. Pour moi, à, à mon avis, il ne faut pas Moi, je suis de l'avis de ne pas citer. Mais si on veut citer des codes dans le rapport, euh, si on part sur ce consensus-là, j'aimerais bien que le code du travail soit cité et qu'il soit en bonne place. Euh, pour, ce, euh, pour, ça, moi, je suis plutôt d'un avis qui a été émis par euh, le professeur Samandia dans notre groupe, de la mise en place d'une commission permanente de réforme des codes, plutôt que de citer des codes à réformer euh, et d'en oublier certains, parce que tout de suite, euh, le rapporteur a oublié le code du travail, qui aujourd'hui pour moi est essentiel. Et si on se met à citer des codes, on va les oublier. Pour, euh, pour rester dans le sens du travail, euh, je voudrais euh,